waa fii donte Dakar la yëngoom mais nag Touba dëkk moom moo bëgg def participation euh, moom lañuy ñuy bëgg jox kaddu gi sëñ Mara bisimilah kàddu gi. waa kay bi nag di ci jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha Bassirou ayadallahu wa nasruhu yàlla na ko fi suñ borom sax naa am na ñoo xam ne tey gaañu nañ ci procès bi boo leen yeewoon ne leen fii la toll mhm. lenn rek lañ lay wax am ngeen Pastef mhm. kon nag naa joxe sax un milliard amiin bak sëñ Tuubaa bu tàbbee ci biir Pastef yàlla na ful ci réew mii di Sénégal amiin ba Afrique yëpp jariñu ci amiin bak sëñ Tuubaa sëñ man de aw lu may wax mm-hmm. di ñaan nag président Ousmane Sonko mi nga xam ne mm-hmm. moo nekk ci bopp liggéey bii mm-hmm. te it dara ko ci lii ñuy def yàlla na ko saa gën a wayafalal yan bi te wayafal na ko ndax la tax mu wayafal ko mooy sénégalais dañuy jox la tax ñu woote yépp mooy dañoo bëgg mu bari te barkeel mm. Mm. bu kenn xeeb nag bu kenn toog naan man bokkuma ci lii waa Pastef déedéet lii du waa Pastef man bu doon ciw këyit ci dara bokkuma Pastef ak keneen ak keneen ak keneen mm. waaye damaa bokk ci réew mi gëm ne damaa bokk ci mën a suqali réew mi fiñ koy jaare nag mooy ñu génne li ci poos yi ñukki ko teg ci taabal ci te murit nag képp kuy woote wala ngay joxe kenn waruñu cee man dëgg de maa ngi dëgg la jaare ko ci président Ousmane Sonko Serigne Cheikh Thioro mii ku gis toogin wii bu hmm. doonu cër wala daraja wala xëccoo leneen hmm. day toog ñu koy jox addiya hmm. kon kii lan moo ko ñor gisuñu lépp gisuñu gis gisuñu mbubb dañoo gis lan fas yéene tabax Sénégal bu bees ci deux mille vingt quatre incha allahu rabbi li koy tabax nag mooy suñu dërëm yi ak suñu million yi ak suñu juróom yi man nag nga baal ma waaw maa ngi dégg sëñ Mara. waaye bëgguma Mara dogu wuy ma la doguma la waaye xoolal. lii dafa nekk lu symbolique. Mhm. waaw buñ sañoon daal nga annoncé ko rek lu comme lu baax la moom. buñ sañoon daal nga annoncé rek wax dëgg yàlla. Ah, waaw. Uh-huh. déedéet non non lii du puukare lii. dëgg daat mhm. ne defal ma ko ay vingt cinq mille vingt dëgg la. ngir suturaal ñeneen ñi. dëgg la. sëñ Mara man naa man joxe ak tuut. am koo mhm. xam ne junneem ba sax da koy nanga ba joxe te xamul ne. Mhm. mille francs junni lépp lañ soxla ndax dañoo bëgg a tabax réew mi. dañoo bëgg a tabax réew mi waaw. ay waaye dëkk maa leen koy ñaan man de du wax nangam la waaye danaa ci góorgóorlu ba. Ah, dimbali ba ba ba ba ba ba daal danañ ci def suñu kéem sa kàttan mu néew mu bari nag. waaw c'est Hmm. maa waaw ah, kon jégal nañ la ko. maa ngi hmm. kon euh, sëñ Mara kàddu yi am na solo moom itam on a euh, comme ni ko waxe nee na participation bëgg koo.